daleen ak jàmm mbokk internet yu seen njëriñ TV tey nag dinañu waxtaan ak yéen jëm ci Ayib Daffé moom mi nga xam ne nag dañu ko nommé mu jiite groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi moom Ayib Daffé nag gis ngeen li nga xam ne moom mooy jëf ji mu doon def ci laata élection présidentielle bi ngir rek am fiche de parrainage jagleel ko président Ousmane Sonko. wala sax mu déposé le lii di caution ci élection présidentielle yile mom Ayib Daffé lii di assemblée nationale bu Sénégal nak daldé am ak ciopité bu am solo ci ay raawam ndax Ayib dafé mom nak mom lañu désigner désigné mu nekk président bu bees bu groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi daal di fay wutu nak biram Souleye Diop mi nga xamné dañ ko tab mu nekk jëwriñ gi gallo wàllug énergie pétrole ak mine mom Ayib dafé biram Souleye Diop jouer joué ci rôle bu am solo jëm ci groupe parlementaire bi lata sax muy euh, dem ca ministère de l'énergie ak pétrole ak mine bu ñu sukkandikoo nag ci direction bi ñu ne groupe Yewwi Askan Wi moo nekkoon nag ci ay initiative yu bëri jëm ci législative yi nga xam ne la taxoon taxoon jóg rek moom mooy améliorer gouvernance ak condition de vie des sénégalais moom Ayib Daffé moom mu ne nag tey moo jiite li nga xam ne moom mooy groupe parlementaire bu Yewwi Askan bi bu ñuy wax sax ne Yewwi Askan Wi daa tas déedéet buñ ko nangu des na kay loolee sax la ñu war a wax ne moom des na li nga xam ne moom moy est Askan woowule daal wax nak ci ki di Latif Coulibaly mom mon le silence loolu sax lañ ko meuna tuddé jëm nak ci bir euh, coalition Benno Bokk yakar bobule mom mi nga euh, porte-parole du euh, gouvernement euh, ci bir mom Latif la di wax rek ci coalition Beno Bokou Yakar, boobule mom Nena dafa blessé wu ba proclamation résultat yi ak manigance coalition Beno Bokou mu nak depuis proclamation résultat yu scrutin yoo jilee dafa décidé rek daal di dakkal ay activité politique ci bir euh, Benno ak bir APR le tank nak mu jël initiative politique bu am solo bi nga xamné nak dina mëna continuer engagement politique ndax moom dafay wa waa ñi di Pastef wala gouvernement euh, bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak lu mu ci mënti doon ñu ngi toog di koy xaar ak ban dogal lay jël nee na nag dafa blessé ndax euh, ci turu alliance boobu la ak bon vouloir de l' l'intérêt d'un clan moom nga xam ne moom mooy euh, Latif Coulibaly noonee nag la daal dee àddu nee na nag euh, moom dañ doon ragal sax ñàkk pouvoir bile wante nag yàlla daa def ne dañu ko mujjee ñàkk ak lu mu ci mënti demee ñu ngi toog di xaar fan la wànnent di mujjee ki gëtt